seen ay xët yu njëkk mu mel ni rek dañuy daal di ànd ak yéenekaay bi nga xam ne moom moo di réew mi quotidien réew mi quotidien ni ki tey euh, ci li nga xam ne moom moo di 2 mars 2021 dafa daal di tàbbi ci at bi nga xamante ni wopp ji di coronavirus am na ko ci réew mi di Sénégal mu daal di xaatim ci xëtam bu njëkk moom réew mi quotidien retour sur une épidémie ki a tué qui a tué 880 euh, personnes maanaam daal wopp ji bi mu duggee ci réew mi ak léegi def defagum at ci réew mi faatagum ci juróom-ñetti téeméeri doo doomu aadama ak juróom-ñett fukk le Sénégal entre peur et angoisse loolu la yéenekaay bi daal di wax moom réew mi quotidien ginnaaw rek bi nu dégtalee li nga xamante ni rek moom moo di nataalu virus boobee di corona waaye itam yemu ca ma ngay àddu ci loolu nga xam ne moom moo di médiation dans l'affaire Sweet Beauté coow li nga xam ne moo topp Ousmane Sonko ak Adji Sarr mu mel ni Mame Makhtar Gueye ak compagnie ak jaga ñaaleem ak ki ñoñom fi mu ne nii am nañu jafe-jafe ngir gis ki nga xam ne moom moo di soxna Adji Sarr ginnaaw rek bi gisee ki nga xam ne moom moo di Sonko waaye coowal Ousmane Sonko ji mu mel ni rek dafa taxoon ñu daal di teg loxo moom dàmbooj ak Karim Xurum Xaq mu mel ne ni ki démb rek la ñuy fësal ni mujj nañ leen a bàyyi rek ñu daal di delluwaat fa nga xam ne moom moo di seen ay kër niki noonu ginnaaw réew mi quotidien ñu daal di ànd ak lii quotidien lii quotidien daal di ñëw nag ci ki nga xam ne moom moo di Ousmane Sonko Sonko convoqué demain à 9h niki ëllëg ci àllarba ji bu juróom-ñeenti waxtu jotee ci suba gi rek la ko daal di fas yéene xaarandi fa nga xam ne moom moo di ca kanamu lay eh, takk dere naka war a déglu c'est parti pour le bras de fer mu mel ne dee ëllëg daal fi ne ñëpp rek jot nañu ak seen ay noo yi di xaarandi ban taxawaay la Ousmane Sonko nar a am waaye itam ana lan la nar a jur rek bu fekkente ni Ousmane Sonko na ma ko waxee la ko defee ngir rek daal di wutali ni kat wutali ji uy ji ña nga xamante ni ñoom ñoo di àttekat yi waaye ni noonu itam pour sauver Guy Marius et compagnie la défense s'accroche aux lois d'amnistie de Clédor Sène mu mel ni kii di euh, Guy rek mujj nañu leen a gàll li nga xamante ni moom moo di mandat de dépôt loolu yéen a bi di lii quotidien fësal niki tey ci li nga xam ne moom moo di xëtam bu njëkk niki noonu ñu daal di ànd ak tribune yéen kaay yi moom nee na vers un mercredi très long pour Ousmane Sonko niki ëllëg dina doon bés bu gudd te yàgg te métti ci ki nga xamante ni moom moo di Ousmane Sonko ndax nag yoon daf ko daal di convoqué mu fas yéene jàkkaarloo ki nga xamante ni moom moo di juge bi ci coowal affaire Adji Sarr mi nga xam ne rek ma ngay toppee Ousmane Sonko yakkataan viol ak li nga xam ne moom moo di menace de mort le leader de PASTEF va-t-il répondre loolu laaj bu samp la ci biir tribune yéenekaay yi ba xam moom Ousmane ko dana wuyu ji naam wala déet mu mel ni fi mu ne yéenekaay bi lool la sampap laaj di déglu ak xaar ni ki ëllëg naka naka la mbir yi fas yéene demee waaye itam yéenekaay ba yemu ca ma ngay àddu jëm ci wopp ji di coronavirus le 2 mars 2020 le Sénégal enregistré son premier cas de Covid ni ki daaw ci waxtu wii la ñu gis ni Sénégal la amoon premier cas koo xamante ni am na wopp ji di coronavirus yéenekaay bi ni kat un an de pandémie avec des dégâts énormes njeexintal bi mu am bi mu duggee ci réew mi ak léegi ci loolee la yéenekaay bi daal di ñëw mu mel ni doy na waar métti na lool lool ci ni nga xam ne noonee la ko askan wi daal di dunde waaye ba tey ci biir yéenekaay ba yemu ca ma ngay wax ci saisie de drogue ak Diourbel ca Diourbel la ñu daal di tegee loxo lu takkoo takku ci wàllum drogue la douane met la main sur quatre-vingts kilogrammes de chanvre indien loolu la yéenekaay bi daal di wax ci xëtam bu njëkk waaye niki noonu itam ma ngay tàbbi euh, niki démb ci ñi nga xam ne ñoo jotagum recevoir seen première dose de vaccin tolloon niki ci vingt-sept mille dix-huit personnes yoo xamante ni jëlagum nañu maanaam li nga xam ne moom moo di seen ñàkk loolu la tribune yéenekaay yi daal indi niki tey ci talaata ji ñaari ci weeru mars atum deux mille vingt et un niki noonu ñu daal populi vox populi ba tey xëy sampab laaj toftale ko ak nataalu ki nga xam ne moom moo di Ousmane Sonko ndax vox populi nee na kat convoqué par le juge demain à 9h Sonko va-t-il répondre loolu la yéene kaay bi di vox populi daal di indi niki tey ci li nga xam ne moom moo di xëtam bu njëkk mu di laaj bu samp di addu ba xam niki ëllëg moom Ousmane Sonko dana wuyu ji ñi nga xam ne ñoom ñoo di juge bi naam wala déet ci coow li nga xam ne moom la ñu gàll ci ndoddam mu di li nga ni moom moo di yakkataan waaye yemu ca moom ma ngay àddu di fësal ni kat la le leader de PASTEF qui a refuté la procédure de levée de son immunité a déjà annoncé qu'il ne déférera pas devant le juge sec maanaam daal bi mu àddoo ni ñu yëkkatee laalee mbalaanu kiiraayam nee woon na bu ñu ko convoqué foofu nga xamante ni foofee la mbaxane doone benn du ca wuy ji ndax nag nañu élaborer mbir yi nañu laalee mbalaanu kiiraayam dëppoowul ak li nga xamante ni moom la yoon daal di digle waaye ba tey ci biir yéenekaay ba ma ngay àddu jëm ci atu yàlla bi nga xam ne gis gis wopp ji di coronavirus duggee na ko ci biir réew mi di Sénégal un an de la Covid 19 des chiffres qui parlent fi mu ne xayma yi ak chiffres yi mu ngi àddu di wax ci teewaay wopp ji di coronavirus d'un cas mars à 34 732 infections au 1er mars 2021 mu mel ni ci xayma gis nañ wopp ji bi mu duggee ak léegi depuis 2 mars 2020 ba le 1er mars 2021 li nga xamante ni moom la ñu jotagum enregistré ci ay nombre d' infections waaye kii di dàmboo ci Karim Xurum Xaq ak. ay seen i jagañaale ñoom fi mu ne bàyyi nañ leen kii di Assane Diouf ak Clédor Sène moom fi ne nii caabi mujj na leen a féete ginnaaw ginnaaw rek bi leen gàllee li nga xam ne moom moo di mandat de dépôt mu mel nii ak li nga xam ne moom moo di sensibilisation contre la Covid 19 ci li nga xamante ni moom moo di maanaam wàllum ñaq yi lii nag ma nga xewee fa nga xamante ni moom moo di ca mosquée unité 15 des Parcelles Assainies imam moo doon def benn pour imam ba moo doon def xutba ngir xëcc askan wi ngir ñu daal di dem vacciné wu mu mel ni ni ki noonu rek ñi nga xam ne ñoom ñoo di fidèle musulman yi ñoom itam dañu mujj mer ca anam ba nga xamante ni noonu la defee xutba ba ngir wooleen rek ñu daal di dem ñàkku ji vox populi moo ko daal indi ni ki tey ci li nga xam ne moom moo di xëta bu njëkk jëm ci xew-xewu jamono ni noonu ñu daal di ak libération libération ba tey des ci coowal Ousmane Sonko waaye ni ki noonu dafa àddu jëm ci péripétie d'une convocation maanaam li nga xam ne moo wër ndomba ni ki la war a jàkkaarloog juge bi mu di le juge du huitième cabinet moom daal mu mel ne e passé par la section de recherche qui a contacté maître Khoureychi Ba mu mel ni rek ni ki noonu itam gis na ni que l'avocat a dit au commandant de section de recherche qui lui demandait de décharger la convocation pour mercredi à 9h la position de Sonko quand maître Khoureyssi Ba l'a informé mu mel ni rek taxawaayam na mu gisee moom Ousmane Sonko ba ko maître Khoureyssi Ba euh, xamalee rek li nga xam ne moom moo di dogal bi ni ki ëllëg bu juróom-ñeenti waxtu jotee ci suba war na dem wuy ji ki nga xamante ni moom moo di juge d'instruction bi mu di juge du huitième cabinet bi nga xamante ni moom la ñu dénk ngir mu euh, di addu wala boog mu déglu ki nga xamante ni moom moo di Ousmane Sonko waaye ni ki noonu itam yéene ba yamu ca nee na les étudiants en année de clinique et la vaccination contre le coronavirus une discrimination scandaleuse mu mel ne fi mu ne bi vaccin yi duggee ci réew mi dafa mel ne ak par parloo lañ ci nemmeeku ndax dañu gis ne ñii nga xam ne ñoom ñoo di les maires les politiciens ak lu ni mel ñoom daal la ñu bàyyi ak vaccin yi ñuy ñàkku waaye tam mu mel ni priorité la ñu waxoon ci bu ñàkk yi duggee ci réew mi dañ ko daal di laisser en rade loolu la libération fësal ni ki tey ci li nga xam ne moom moo di xëtam bu njëkk Sonko face au juge le quotidien moo ko daal di xaatim jëm ci affaire Sweet Beauté convoqué au tribunal demain ni ëllëg la war a wuy ji juge Seck ngir àddu jàkkaloo ak moom ci li nga xamante ni moom la ñu koy gàll ci ndoddam moom Ousmane Sonko mu mel ne ay avocat jot nañu li nga xam ne moom moo di convocation bi kii di Clédor Sène ak Assane Diouf ñoom jaabi féete na leen ginnaaw daa mbooc ak jegeñaaleem ñoom itam mujj nañu leen libéré ñu daal di dellu ci seen i kër atu yàlla vaccination mu mel ni ginnaaw bi mu defee at nag fi mu ne Sénégal la mu tëgg jàpp ni mooy saafara wopp ji di coronavirus mooy lan mooy li nga xamante ni moom moo di ñaq yi waaye li jëm ci wàllum alom gi ana nees mën a def ngir aar ko neuf nouvelles forêts classées dans quatre régions maanaam indi nañu juróom-ñeenti forêt classée ci ñeenti dëkk fi nga xamante ni moom moo di Sénégal ngir mu daal di dugg ci protection de l'environnement loolu la quotidien moo ko daal di indi niki tey ci li nga xamante ni moom moo di ay xëtëb yu njëkk ki noonu rek ñu daal di ànd ak laas yéenekaay laas yéene kaay indi nataal bu yanj bu Ousmane Sonko waaye itam yamu ca ma nga ca toftal des partis font bloc autour de Sonko fi mu ne ñu bëree bëri rek wékku nañu fas yéene ànd ak ki nga xamante ni moom moo di Ousmane Sonko donte gis na ne ni ki ëllëg la ko la ko juge Seck di xaarandi ngir mu daal di àddu ci li nga xam ne moom la ko Adji Sarr di toppee la médiation du collectif des religieux euh, but sur Adji Sarr moom mel ni ginnaaw rek ñoom itam bi ñu jàppee ni jàmmo jot na ngir ñu wax ak ñoom ñaar ñëpp Ousmane Sonko ak Adji Sarr ngir indiwaat dal ci réew mi dafa mel ni rek gis Adji saar ngir wax ak moom doon na ay jafe-jafe ci collectif des religieux ci médiation bi nga xam ne ñi ngi koy sàkk lool laas yéenekaay moo ko daal di indi laata muy àddu ni kat le camp de Soko fortement affaibli par les mandats de dépôt fi mu ne daal ñi nga xam ne dëgg-dëgg nag waroon nañu jàppale Ousmane Sonko ñu ci bëri bëri fi mu ne gàll nañu leen mandat de dépôt caabi daal di leen di féete ginnaaw wa loolu la laas indi laata muy tàbbi ci atu yàlla ginnaaw bi wopp ji di duggee ci biir réew ravageuse mu mel bi mu duggee ak léegi tey la gën a tar gën a métti tey la gën a mën a faat tey itam la wàll gi gën a yomb ci li nga xamante ni moom moo di réew mi di Sénégal la ni ki noonu ñu daal di ànd ak le témoin quotidien le témoin quotidien ñëw ni kat mercredi de vérité pour Ousmane Sonko ni ki ëllëg mooy bésu dëgg jëm ci ki nga xam ne moom moo di Ousmane Sonko ndax ca la ñu ko convoqué devant le ngir mu daal di àddu ci li nga xam ne moom la ko Adji Sarr di toppee ndax gis na ni foofee ca pencam ndaw réew ma ca la ñu da jotee lalle li nga xamante ni moom moo di mbaalaanu kiiraay waaye le temps mooy quotidien yamu ca ci ay gëstoom nee na kat il est convoqué un mercredi marce mars comme avant lui un certain Khalifa Sall mu mel ni ki marce mars bu un certain 3 mars ci la ñu convoqué woon ki nga xam ne moom moo di Khalifa Ababacar Sall mu mel ni ñoom ñaar dañu mujj rek daal di bokk li nga xam ne moom moo di date bi waaye dam dàmbooc Karim Xurum Xaq ak fukk ak juróom-ñetti doomu aadama jot nañu leen libéré ci teg loxo ga ñu leen jotoon a teg loxo waaye di kii di Clédor Sène ak Assane Diouf moom gàll nañu leen mandat de dépôt daal di leen di tëj rek ba nga xam ne caabi fi mu ne nii daf leen daal di mujj rek féete ginnaaw loolu la temps mooy quotidien daal di indi niki tey ci li nga xam ne moom moo di xëtam bu njëkk ba tey ci biir yéenekaay yi bi yoon ak Sud Quotidien Sud Quotidien ñëw na ci stratégie répressive contre Pastef et compagnie ces risques qui sur le pouvoir fi mu ne nii li nga xam ne nag moo nara a dal wala wékku ci li nga xam ne moom mooy état bu Sénégal Momar Diong poli euh, Momar Diong di journaliste analyste politique moom ma ngay àddu ci lu ni mel waaye ba tey ci biir yéenekaay ba ma ngay àddu jëm ci li nga xam ne moom moo di régulation des médias démarrage du dépôt pour la nouvelle carte de presse ni ki mars bi nga xam ne moom ñuy dëgmal ci la ñu fas yéene bàyyi rek taskatu xibaar yi ñu daal def rek li nga xam ne moom moo di ay dépôt jëm ci carte nationale de presse bi nga xam ne dañu ko daal di ngir rek indi ay leeral wala boog daal di assainir li nga xam ne moom moo di milieu médiatique bi loolu la noonu ñu daal di ak beneen yéenekaay moom mel enquête lay daal doon ginnaaw Sud Quotidien ça sent le soufre loolu la daal wax moom enquête arrestation et convocation de Sonko fi mu parti bu Pastef ndax ñenn ñi yoon teg na leen loxo waaye tam seen leader ñu ko fas yéene convoqué ni ki ëllëg kii di Karim Gueye Dame Mbodj et compagnie ñoom libéré nañ leen ñenn ci ay collègues de Birima Souleye Diop réclame sa libération maître Moussa Sarr Ndiaye moom fi mu ne nii constitué mais Birayma Mbengue Ousseynou Gaye ak Bassirou Balde ñoo fas yéene ànd ak moom daal di koy layal waaye procureur avait requis le mandat de dépôt à son encontre Sidi Ahmed Ndiaye auditionné comme témoin ce matin ne sera assisté d'aucun avocat loolu la yéenekaay bi daal di wax fi mu ne ci coow li nga xam ne moo daal di topp bërëbu liggéeykaay bi di Sweet Beauté rawatina ki nga xam ne moom moo di Ndeye Khady Ndiaye waaye ki noonu itam ci biir yéenekaay bi ña ngay séen itam Ousmane Sonko mu mel ni ku sëngeem ndax nag niki ëllëg incha allah la ñuy sàkku ci moom mu daal di dem jàkkaarloo ki nga xam ne moom moo di juge bu huitième cabinet demain jour fatidique pour Ousmane Sonko ni ki ëllëg dina doon bés bu gudd te métti te tar ci ki nga xam ne moom moo di Ousmane sonk toutes les dispositions prises pour les par les autorités judiciaires pour aller le cueillir s'il représente s'il ne présente pas de son plein gré mel ni rek fi mu ne nii jël nañ lépp lu nga xam ne matukaay la ci bu Ousmane Sonko ñëwulee nga xamante ni moom mooy wuyu ji ki nga xam ne moom moo di juge bi sinon rek daanu ko daal di dem a cueillir fa nga xamante ni moom moo di këram c'est la section de recherche qui a amené la convocation vers 18 heures 19 heures mu mel section de recherche ñoo daal di dem rek jébbal ko li nga xam ne moom moo di convocation bi di ki démb bi 6 heures jotee jàpp 7 heures maître Khoureyssi Ba di àdduni kat à déchargé la notification au nom de Ousmane Sonko moom ak accepté na li nga xam ne moom moo di notification bi daal di koy euh, jëlal rek ci loxo yi ki nga xam ne moom moo di Ousmane Sonko kii di Clédor Sène ak Assane xam ne moom moo di Guy Marius Sagna fa nga xamante ni foofee la mbaxane doone benn niki noonu ñu daal di ànd ak source a maître El Hadj di ñett loolu la daal di wax moom source a maître El Hadj Diouf di ñett maanaam fi mu ne lànk na ba tëdd ca naaj wa nee na kat li nga xam ne moom moo di médiation donc religieux dans l'affaire nee na fi mu ne ni mënuñoo fexe ba teg gët ki nga xam ne moom moo di Adji Sarr moom maître El Hadj ma ngay wax les religieux n'ont qu'à s'occuper de la religion kilifa diine yi nañu lijjanti li nga xam ne moom moo di diine gi sinon il risque de euh, discréditer dame justice fi mu ne buñ ci àddoo rek fi mu ne daanu indi ay gàllankoor ci yoon na mu war a liggéeyee loolu la wax moom maître El Hadj Diouf ni la société civile ni le chef d'État aucune instruction personne ne doit faire obstruction à la manifestation de la vérité dont le tribunal se charge fi mu ne bu kenn dugg ci mbiri du président du keneen ak keneen ku ca war a mën a àdduna yoon def li nga xam ne moom moo di liggéeyam waaye yemu ca nee na Adji Sarr ne élections parce qu'elle croit en la justice de son pays et contrairement à ces gens qui dénoncent la justice. Hier, le juge d'instruction a remis Ousmane Sonko sa convocation via ses avocats mu mel ni loolu la yéene kaay bi daal di indi taxawaayu ki nga xam ne moom moo di Adji Sarr waaye di fësal ni ki démb bel et bien moom Ousmane Sonko jot na li nga xamante ni moom moo di convocation ngir wuy ji ëllëg ki nga xamante ni moom moo di juge bu huitième cabinet l'épouse d'un célèbre marabout très ami boromam Anturbanin loolu la yéenekaay bi daal di wax détail exclusif yéenekaay bi di source a moo daal di joxe xibaar bu ni mel la niki noonu ñu daal di ànd ak Walf Quotidien vacciné en premier au secours les gros bâtonnets s'accaparent des doses fi mu ne daal fi mu ne askan wi ñu ngi jooy ak a ñaxtu ci nañu gisee fi mu ne nii ñi nga xam ne ñoom ñoo di borom daraja yi ñooy ministre yi ñooy maire yi ak lu ni fi mu ne jël nañu li nga xam ne moom moo di vaccin yi daal di koy féetewoo di ñàkku daal di bàyyi askan wi nga xam ne moom moo taxaw ñu ne dañuy indi ñàkk yi jëm ci personnel de santé bi ak ñi nga xamante ni dañuy dund ak ay jàngoro ak ñi nga xam ne ay mag lañu ëppal nañu juróom benn fukki at loolu la yéenekaay bi di Walf Quotidien daal di indi daal di koy ñaxtul li nga xam ne moom moo di askan bu Sénégal un an Covid mesure impact date qui ciblé quelques piqûres de rappel loolu la yéenekaay bi daal di wax moom Walf Quotidien loolu la indi ci li nga xam ne moom moo di xëtam bu njëkk ni ki noonu ñu daal di ànd ak yenekaay yéenekaay critique yéenekaay daal di ni kat wantiit Adji Sarr fi ne nii ñu koy xaarandi ana ana aji saar loolu la yéenekaay bi daal di wax ndax médiation bi nga xam ne religieux yi ñu ngi ko doon sàkku jëm ci ki nga xam ne moom moo di aji saar ak Ousmane Sonko ngir rek gën a mën a indi jàmm ci fi nga xamante ni moom moo di réew mi waaye ma ngay fësal ni kii di Clédor Sène ak Assane Diouf en prison damboo ci daal noonu la ñu gisee par rapport ak taxawaay bi nga xamante ni yoon def na ko ca dox ñaxtu ba nga xam ne ña ngi ko doon amal ndax lan xeexal ki nga xamante ni moom moo di Ousmane Sonko ni ki noonu ñu daal di koy daanale ak direct news direct news news daal di ñëw nag ci docteur Moussa Sow sa lâche loolu la daal di wax docteur Moussa Sow jot na àddu mu di benn gis-gis bu mu def ci activiste yi riposte ak vaccin anti Covid ak leadership du président Macky Sall en Afrique le Sénégal est pris en otage par des activistes qui prétendaient parler au nom du peuple fi mu ne na mu gisee moom docteur Moussa Sow mooy fi mu ne activiste yi fi mu ne ñoo ŋànk réew mi di àddoo ci anam bu nga xamante ni waruñu ko àddoo ngir askan waaye Sénégal jël deux cent mille vaccins fi mu ne ci Afrique sow jant maanaam Sénégal mooy dëkk bi nga xam ne moom moo njëkk maanaam rek jot li nga xam ne moom moo di vaccin yi ngir xeex wopp ji nga xamante ni moom moo di coronavirus ak yu ni mel la waaye yemu ca dans un élan de solidarité panafricaine eh, ba nga xamante ni gis nañ ko président Macky Sall dafa daal di jël dogal jël dix pour cent ci vaccin yi daal di koy jëbal Gambie ak li nga xamante ni moom moo di Guinée Bissau loolu la yéenekaay bi di direct news daal di indi laata muy tàbbi ci coowal Ousmane Sonko ci ëllëg la ñu koy xaarandi foofu nga xam ne moom moo di ca kanamu juge ba di a cabinet ngir mu àddu ci li nga xam ne moom la ñu gis ni moom Adji Sarr mi ngi ko koy toppee mu di yàkkataan viol ak li nga xamante ni moom moo di menace de mort mu mel ni loolu moo doon ni ki tey liñ di gënoon a fës ci seen pàcc bi njëkk ci seen biir émission actualité en débat di toute l'